tey conseil municipal bi dafa daje woon ñu amoon fi ñetti point yoo xam validé nañ ko ñetti point yooyu benn bi dañ doon autoriser monsieur le maire mu signer contrat yi pour exercice bi ñu nekk beneen bi moy parti civil bi nga xamné ville de Dakar defoon nako ko pour naître dans le procès et euh, défendre la ville le troisième point benn adhésion la won bo xamné dañ koy def ci maire adina bi yëpp ñoo def benn association ñu dugal ci ville de Dakar yooyu ñetti point moom la ñu wote tey li ci des nag dañuy dem intercommission ñu waxtaan ci ak commissaire yi bu ñu paree ñu dellu si en plénière waxtaan ak nit ñi ak voté li ñu war a voté. li fi maire bi nekkul wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla ba léegi ndax mun nañoo def suñ conseil yi ñu ngi koy def boobu ba léegi administration bi itam mu ngiy dox. yenn difficulté yi ñu am mooy affaire perception rek te xam ngeen ne rôle d'impôt yi balaa ñoo yegg si juillet août la loolu mooy xaw a tardel tuuti suñu liggéey waaye macha allah boobu ba léegi daal yàlla ñuy suturaal mun nañu daal continuer liggéey bi maire doon def ma di leen fàttali rek ne maire mooy maireu Dakar ma nga rëbës waaye ma ngay continuer di signer mi ngi traité dossier yi ah loolu yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi ci sant yàlla bu baax.